mu ne wa yanfuzuhumul basar nee na ko xoolit ñoom ñëpp ngay gis doomu aadama yëpp qul inna al awalina wal axirin la majmuun dañ leen di dajale ila miqaati yawmin maalum mu ne wa taddunu sams mu ne jant bi dal di jege mu ne nit ñi danañ egg ci njàqare ak tiis loo xam ne duñ ko attan duñ ko mën a tee dékku nee na su ko defee nit ñi ne waaw xanaa gisuñu nag ci li ñu nekk ci kan lañuy dem mu tinul sunu borom attenu ñu ko xamee ñu dem ci yonent yi jiitu woon dem ci aadama dem ci ibrahim dem ci muusa dem ci isa alayhimu salaatu wassalaam kenn ku ne joxe ngant dem ci noox mu ne fa yatuuna nii ñu ñëw ci man yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ko yaa muhammad anta rasulullah yow de yaay ndawul yàlla waxaatamul xaatamul anbiya yaa mujj ci yonent yi waqad xafara laka maa taqaddama min zanbika wa ma taaxar jéggal na la sa bakkaar yu jëkk ak yu mujj kon nag isfa lana ila rabbik tiinul nu ci sa boroom xanaa gisoo li ñu nekk nee na ma daldi dem ci suufu aras nee na ma sujjóot nee na suñu boroom baaxe ma ci ay xeeti cant yu ma koy santeeg yu ma koy tagge yoo xam ne mësu koo jàpp ndalal kenn xeeti cant xeeti tagg ya gën a mat nee na mu def ko ci biir sujjootam boobu jëmee ko ci suñu borom tabaraka wa taala nee na suñu borom tabaraka wa ne ko irfa rasak sigil sal tuuta laajal ñu jox la wasfa tu safa lu ñu tin la nee na ma yëkkati sama bopp dal ne rabbi ummati ummati ummati nee na yow sama borom sama xeet sama xeet sama xeet ne mu ne ma yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam dugalal ci saw xeet ñoo xam ne kenn du leen regle dañ duggee ci buntub ndeyjoor min al baabil ayman min abwaabil janna ne ko ñoo ñeneen ñi nag ñooy bokk bunt yi ci des waaye bunt boobu moom bunt la bu ma leen jagleel ñooñu ci saw xeet nga xam ne kenn du leen réglé yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne giñ naa ne yaatuwaayi bunti aljana yooyu toll ne diggante makka ak barab bu ñuy wax ujur place bu sori la beneen bi mu ne diggante makka ak busra diggante yu soree sori distance bu sori la mu ne buntu àjjana bi yaatuwaay bi toll na noonu mu dig ci sayxul buxaari yi ba tey yonente bi alayhi salatu wasalaam ne yadxulul jannata min ummati sabuuna alfan bi xayri xisaab mu ne juróom ñaar fukki junni ci sama xeet danañ dugg aljana te kenn du leen xisab mu ne allazina laa yastariquuna nee na mooy ña nga xam ne du ñu mocc wala yatatayaruuna duñu ñu gaaflu wala yaktawuuna du ñu ñaasu wa ala rabbihim yatawakkaluun ci yàlla rek lañu wàkkil nee ñooña duñu ñu mocc dëgg la mocc moom am na ci yu dagan waaye nee na ñooñe seen wakkiilu ci yàlla dafa egg ba bu leen dara dalee lu jal mocc googu sax ñoom duñ ko def dañuy bàyyee yàlla noonu rek teewul nag mocc yi nga xam ne daggan na moom dagan nag jullit def ko yi nga xam ne yañ koy defee eh, ay ñaan la yorot jóge ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam dikk ci alquran kooku dagan na eh, ar ruqya charia yooyu moom dagan na mu ne duñu lu itam di wutal lu ñuy wutal gaaf bi sàngam nangam bi sàngam rafetul wala weer sàngam wala diw bu ma dajeek moom loolu moom dëgganul moom kooku moom ci bokkaale lay dugg nee itam duñu ñaasu ñaasi xeetu paj la woo xam ne nee na ñoom su leen lu jar loola dalee duñ ko def teewul nag def nga aayut bu fekkee luy faj la waaye ñooñu nee na seen yaqiin ci yàlla moo toll foofu defuñ ko nag rek ngir di défier nit ñi naan moom lii duma ko def te fekk na amoo yaqiin bu toll noonu ci yàlla loolu itam loola boobaa mën naa nekk lor parce que nit kooku yaqiinam egg foofu ci yàlla moom ak wakiirloom ci suñu borom tabaraka wa taala mën na bu jaarul ci sabab yooyu itam suñu borom tabaraka wa taala fajal ko la nga xam ne moom moo doon euh, yitteem amaa yow ma ca yëgul nag fokk nga jaar ci sabab yi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala teg mi ngi aju ci yaqin bi rek li nga xam ne mooy tolluwaayu ñeenteel bi muy almashadu rabia nag gannaaw bu ñu taxawee taxawaay boobu ba yonente bi alayhi salaatu wasalaam tinu suñu boroom ba suñu boroom nag di atte jaam ñi nag ci lay wax ne wa uslifatil jannatu lil muttaqin nee nañu waajal ajjana jegeñal ko ngir ñi ragal yàlla waaye wa burrizatil jahim safara moom dañ koy futti mbalaan yañ ko muurul yépp dañ koy didi ba mu ne dandang nga di ko gis wa burrisatil jahimu lil gaawin wa qiila lahum ayna ma kuntum taabuduuna min dunillah yàlla laaj ba muy njëkk laaj mooy anañ la ngeen li ngeen li ngeen doon jaamu te de yàlla anam ayna surakaa i allazina kuntum tasumuun question boobu la yàlla njëkk a laaj anañ ñi ngeen ma ñi ngeen ma doon boolee ñi nga xam ne bu ñu ma masaa tudd fokk ngeen teg leen ca ne yàllaak seen yàllaak yooyee anañu nañ ñëw ayna si allasina kuntum tasumun qaalu dallu anna ñu ne gisatun leen de gaa yee ko doon def ñooy wax ne dallu anna gisatun ca kenn kenn du nangoo feeñ naan man mii la gaa yi doon tudd kenn du feeñ mu ne hal yansurunakum aw yantasiruun ndax mën nañ leen a dimbali tey wala ñu wallu leen fa kubkibu fiha hum walgaawuun wa junuudu iblisa ajmaun mu ne ñoom ñëpp dugal leen leen ci biir safara ak mbooleem ku nekkoon soldaaru iblis ku nekk ci moy rek di tasaa rek mbon soldaaru iblis ga ci armée iblis nga nekk moom ngay liggéeyal moo tax mu ne wa junuudu iblis ajmaun foofee suñ boroom ne fala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin fala naqussanna alayhim bi ilmin wa ma kunna ghaibin nee na danaa laaj yonent yi ma yónni woon ba xam jottali nañ moom déet yawma yajmau llahu rusul fa yaqul maata ujibtum yàlla yonent yi lañ njëkk a interpellé dajale leen waaw yéen laa yónni woon ci nit ñi nit ñi luñ wax qaalu laa ilma lana parce que yàlla kenn jëmewu ko laa ilma lana la ñu innaka anta allamul xuyub xamuñu nit ñi luñ wax duñ jéem a jël benn risque naan nit ñi wuyu nañ ñoo topp nañ lañ andiwoon déedéet maa saa ujibtum xaalu laa ilma lana innaka anta allamul xuyub yow yàlla yaa xam lépp moo tax mu ne fala nas alanna na ursila ilayhim wala nas alanna al mursalin damay laaj yonent yi te nag fala naqussanna alayhim bi ilmin mbir ma nag danaa leen ko nettali na mu tëdde la yonente ba jottali ak na ko nit ñi wuyoo lépp ndax fadduwuma woon man yàlla maa nga fa woon wa maa kunna absenté wu ma benn yoon ci saxiixu muslim yonente bi alayhi ne yu'taa bi jahannama yowma alqiyaama laha sabuuna alf zimaam maa kulli zimaamin sabuuna alf malak yajurruunaha mu ne dañuy andi jahannam wa jii'a yowma isin bi jahannam jàng nañ ko suratul fajr wa jii'a yowma isin bi jahannam dañuy andi jahannama teg fi ñuy attee day ñëw ñépp di ko xool yonente bi alayhi salaatu ne juróom ñaar fukki junni nos lay am nos mooy li ñuy def ci bakkanub gëléem gi di ko wommat safara buub yooyu lañ ciy takk nee na juróom-ñaar fukki junniy mala benn nos bu ci nekk juróom-ñaar fukki junniy malaaka jàpp ci ñu di ko xëcc ñoo koy xëcc di ko indi moo mu ne yow ma isin yatazakkaru l insaanu ma saa bu keroogee kenn ku nekk loo jëfoon da nga ko fàttaliku kenn ku nekk yaa ngi xalaat lu baax loo defoon lu la mën a musal ci lii ak lu bon loo defoon loo xam ne nar na la dugal fii tey yatazakkaru l insanu ma saa mu ne wa anna lahu zikra yaqulu yaa laytani qaddamtu li xayaati dund bépp ma dépensé woon ko waajale woon ko alaxira li xayaati sama dund bépp bépp li borom bi ne woon sax bul fàtte sa cër ci adduna adduna sax ma bañoon cee am dara lépp rek jëmoon alaxira yaa layta loole ak a neexoon xaddamtu li xayaati kon loolu mat naa bàyyi xel bu baax loolu mooy xisaab ba sayxul buxaari yonente bi alayhi salaatu wasalaam suñu borom day andi noox yowmal ko hal ballaxta ndax jot li woon nga yow noox fa yaqulu naam yaa rabbi jot li naa de mu ne fa yus al ummatu nee na ñu laaj aw xeetam hal ballaxakum ndax noox jottali woon na leen ñu ne maa jaa ana min nazir ñu ne ñun kenn waaruñu woon kenn jottali wunu dara waaw nitam ñooñee alku nitam ñooñee mu ñaanoon yàlla bañ alku ñooñee ñoo koy wax ne ñun kenn waxuñu woon dara nee na suñ borom ne ko man suhuudu ko yow noox ñan ñooy say seede ci ne jottali nga mu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ummatu muhammad ak xeetam ñoo may seede yonente bi alayhi salaatu salaam ne boobaa ñu andi leen ngeen seede yéen xeet wi ci la daal di jàng aay bi wa kadalika jaalnaakum ummatan wasata li takunu shuhadaa ala nnaas wa yakunu rasulu shahidan aleykum waaw ummatan wasata mooy xeet wa maandu wasat bu ko firee rek ñun ne ca digg ba déedéet mais ñu maandu al wasatiya mooy ak maandu loo xam ne doo tooñ udulan ngeen seede yéen itam nag yonente bi alayhi salaatu wasalaam seede leen li takunu shuhadaa ala nnaas wa yakuna rasul alaykum shahida boobaa suñu borom tabaraka wa taala ne imtaazu al yawma ayyuhal mujrimun kàccoor yi yéen ñu dëng ñi beru leen fee nit ñi bu ñu jaxasooti ñu dëgg ñi nañ génn beru ne ñu baax ñi beru ne afa naj alul muslimina kal mujrimin da ngeen a jàpp ne damay def kàccoor yi comme jullit ñi maa lakum kayfa tahkumun nee na yéen da ngeen di atte jubut de ku ba daan ñëpp ayam ñëppay dem àjjana mu ne waaw loolu ndax dangeen ko jàng cib téere am lakum kitaabun fiihi tadrusun ah inna lakum fiihi lama taxayyarun téere boo xam ne lu ngeen bëgg rek ma nga ca nit ñi dafa mel ne dañoo yor séerub téere loo xam ñu ne waaye mbir mi nii lay demee inna lakum fiihi lama am lakum aymaanun alayna baaliqatun ila yawmi alqiyama wala dafa am benn accord bu ma leen signeel man yàlla mu walaabal ba yowmal qiyam inna lakum lama taxkumun mu ne salhum ayuhum bi zalika saim laaj leen kan moo jiite wax jooju ci ñoom ku jiite wax ji na ñëw taxaw salhum ayuhum bi zalika saim am lahum suraka wala boog dañoo am ñu ñuy bokkaaleeg man fal yaatoo bi surakaihim in kaanoo sadiqin nañ andi ñooñu ñuy bokkaaleeg man bu fekkee wax nañ dëgg kenn du yëngu ñëpp ne xiim waaw kenn ku ne ne xiim ñañ doon bokkaale sax dañuy tiit ba jàpp nañ feeñ ñooy njëkk naan man day kenn gëmuma woon man de ñu doon wax ba topp ñu ma woon man istabara allasina tubiu min allasina tabaau wa raaw al azab wa taqataat bihim al asbab ñoom ñooy njëkk a denc ñi leen doon topp tabara allasina tubiu min allasina tabaau wa raaw al azab wa taqataat bihim al asbab wa qaala allasina tabaau law anna lana karra yow nga ne diw man topp ma la woon ay buñ dellu woon adduna fa natabarra minhum kama tabarra'u minna kon nii nga dañe ci man tey noonu laay dañe ci yow bu wàlla bu ñu demoon adduna loolu mashad la boo xam ne bu raglu la benn yonente bu nekk ñëw taxaw ñu andi e, sab téere teg saw xeet ñëw nga taxaw ñu atte leen wa yawma taqumu saa bu bis boobu taxawee benn yonent bu nekk danañ la andi nga taxaw suñ borom ne haasa kitaabuna yantiqu alaykum bil xaq inna kunna nastansiqu ma kuntum taamaluun sama téere ngi ni di alquran dëgg rek la doon wax yéen itam li ngeen jëfoon lépp bind nañ ko su ko defee sa téereb jëf boobu la ñuy dendaleeg ak alquran ji ñu wàcce woon ci yow bu fekkee ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bokk wa tara kulla ummatin jaasiya kullu ummatin tuddaa ila kitaabiha kullu ummatin tuddaa ila kitaabiha xeet wu nekk danañ ko woo ci téeréem xeetu sayyidina Muusa ñu woo leen ci euh, injil tawrat xeetu sayyidina Isa ñu woo leen ci injil xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu waleen ci alquran kullu ummatin tuddaa ila kitaabiha al yawma tujzawna ma kuntum taamalu tey jii lañ leen di fay la ngeen jëfoon suñ borom ne sama téere gi haasa kitaabuna moo tax fii ci àdduna mu ne woon jàngal sama téere iqra bismi rabbik bu yowmal xiyaamee nag ñu ne la iqra kitaabaka jàngal sa téere ñaari iqra yooyu rek moo am ci alquran iqra bii ci àdduna la bee yowmal xiyaam la fii ci àdduna moom téere bi yàlla lañ la jàngaloo boo ko jàngee ba xam ko say jëf ak say wax dëppook téere bi day mel ne malaayka yi lay bindal alxuraan nga leen di dicté sa wax alxuraan la sa jëf alxuraan la moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam bañ ko laajee sayyidina Isa mu ne kaana xuluquhu alquran yonente bi lu muy def rek alquran lay digle ndax moom moom lay dicté moom lay appliqué maanaam téereem ñu ko ubbee li na ci kaamil bi rekk a ciy nekk war na fu ñu ubbee sa téere rek sa téereem jëf rocane rek am na référence ci alquran am na fu mu mën a dellu ci alquran bu booba loolu nag mooy xasanaat ya amma la ca amul référence ci alquran nag loola mooy sayyi'aat ya mooy ñaawteef ya mu tax kon kenn ku nekk war ngay góorgóorlu jéem a jàng alquran te di ko jéem a dëppale ak say jëf yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne laa tazulu qadama abdin yowma alqiyama min bayni yaday illahi taala hatta yusala an arbaa nee na benn jéego du déplacé ci kanamu yàlla lu dul ñu laaj la ñeent an umrihi fii ma afna sa dund bi foo ko jeexal dund bii la yàlla may foo ko jeexal dund lu seer la li ci aju lépp ak ni la ko yàlla waajalale yépp nga sànk ko da nga ci lan nga jeexal sab dund wa an jasadihi fii ma abla maanaa sa ndaw gi sa yaram bi ci loo ko rappal ci loo nekk ba màggat ca loola ba ba ba sag ndaw jeex fan nga jeexal sa temps wa an ilmihi fi ma amila bi li nga xamoon loo ci jëfe wa an maalihi min ayna ba wa fi ma anfaqa sa alal foo ko jële woon ak foo ko dépensé ñeenti laaj yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee kenn du jóge fa nga taxaw te tontuwa ko Adiy ibnu Xaatim radiallahu anhu nett na yonente bi alayhi salatu wasalaam ci addis boo xam ne Buxaari yoog Muslim andi nañ ko mu ne ma minkum min ahadin illa sa yukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa bayna rabbihi tarjumaan fa yansur ayman minhu fala yara illa ma qaddama wa yansur ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yansur bayna yadayhi fala yara illa annaar tilqaa wajhi fattaqu nnaara walaw bi shiqi tamra yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne amul kenn ci yéen du lu ne suñu borom dana waxanteeg moom benn interprète du nekk ci diggante bi nee na kenn du dox ci diggante bi nee na mu xool ndeyjoor du gis lu may ay jëfam xool càmmooñ du gis lu may ay jëfam wa wajadu ma amilu xaadira mboolem lu ñu jëfoon dañuy fekk mu teew boo demee ca suratu takwir ba mu ne isa samsu kuwirat ba aaya yépp jeex lam ko mujjee mooy alimat nafsun ma ahdarat ca suratul infitaar alimat nafsun ma qaddamat wa axarat boobaa kenn ku ne la nga fa teewal da ko xam la waroon a ñëw te ñëwul da nga ko xam maa xaddamat li nga jiital wa axarat ak li nga yeexe li nga tardel mu ne mu xool ci kanamam dugg su la may safara mu ne muslu leen safara moytu leen safara doonte xaritu tàndarma wooy sarx la fattaqu naara walaw bi shiqi ndax yonente bi alei salatu nee na sarax day fay merum borom bi comme ni safara ndox ni muy fayee safara waaye sarax boo xam ne da nga koo def ngir yàlla ñu sarax boo xam ne mbiri àdduna rek nga ciy jéem a rek la ñu naan nangam laa bëgg ñu ne la sarxel nangam sarax boo xam ne jibar yi moo la ko tegtal dina la wutal lu muy mel loola moom du sarax moom da koy joxe ngir yàlla te muy lu am njariñ nag lu am njariñ léeg-léeg sax loo bëgg lool lay doon nga joxe ko ndax lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bi alim suñu boroom ne ne ak mbaax du ngeen ko mën a am lu dul da ngeen a fekk la ngeen gën a bëgg bëgg ko lool mu aju ci sa xol nga muñ ko joxe ko foofee mu jógee ci sa xol ngëm yàlla koy remplacer ndax alal day sax ci xol seet alal jën nga gën a bëgg nga joxe ko ngi te joxe koy it fa nga ko war a joxe nag joxe ko fa nga ko war a joxe foo xam ne fii sabilillah lay doon leer la ne ne ña ngi ko jox dañ koy dimbandikoo ci lislaam luy jariñ lislaam ca lañ koy def loolu itam lu mat di bàyyi xel la fi ngay def sa alal Aïcha radiyallahu anha dafa dégg yonente bi alayhi salatu salaam ne man xuusiba yowmal qiyaamati uzziba yonente bi salatu salaam ne ku ñu réglé yowmal qiyaam dëgg dëgg réglé la fa qultu alaysa qad qaala allahu taala fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira aysa ne ko ah waaw xanaa suñ boroom waxul ci alquran ne day réglé réglé bu jàppandi réglé bu yomb mu ne ko laysa dalika al xisaab innama dalika al ard mu ne ko loola du dëgg-dëgg loolu ard lay tudd ard mooy dañuy foyeete sa téere rek passe par passe lemmi lemmi lemmi jàll rek tampanel la nga dem waaw waaye toppuñu ko nag ligne par ligne daal ne ko man nuuqisal xisaabu yowma alqiyamati uzziba ku ñu xool sa sew sewi jëf yi nga liñ la bindal sa téere bi yëpp ñu xool ko baat par baat nee na foo jaar ñu mbugal la waaye ku borom bi nara yërëm nag ndax sa ngëm mat na góorgóorlu nga sa kem kàttan borom bi dalay lay jéggal loolu ci maxfira la tàbbi da lay jéggal maxfira maxfira rek mooy jàllale moo tax borom bi ne saabiqu ila maxfira wuti leen njéggal saari'u ila maxfira maxfira mooy li gën a rëy amum njéggal mooy li julli bi wut ñaanuk jéggal jéggalu borom bi tabaraka wa taala moo tax gis nga ci suratu nasrullah ci saar bi mujj a wàcc mën ngaa wax ne ndigal biñ mujjee wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy jéggalul fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu wastaghfirhu innahu kaana tawwaba waaw aaya wattaqu yawman turja'una fihi ila allah moo mujj a wàcc waaye aaya boobu ndigal nekku ci waaw wax na rek ragal leen yàlla ragal leen bis bi nga xam ne da ngeen ko bàyyi xel boobu avertissement la da ngeen bàyyi xel da ngeen wattandiku bis bi nga xam ne ci lañ leen di delloo ci yàlla waaye ndigal lam ko mujj a jox mooy jéggalul sa borom ci gannaaw nag boo xamee ne sax def na lim war a def lépp moo tax diine ku ciy bàkku naan man egg naa wala man am naa cër sàngam rek bàyyi boobu mooy ko kuy bindal boppam di wax boppam ay mayam ak i cëram ak i ndamam déedéet waaye li mu wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam isa jaa nasrullahi wal fath soo demee ba ndimbalul yàlla ñëw ak ubbi ku am wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja nga gis nit ñi ñuy dugg ci diine yàlla ji nekk ay mbooloo boobaa bul tagg sa bopp de taggal yàlla fa sabbih bi hamdi rabbik sabbaalal nga sant sa borom wastaghfiru te nga jéggul ko nag sax nag waaw te xoolal li nga liggéey lim liggéey lépp ba nit ñi yadxuluuna fii diinillahi afwaaja moom ko mën ngaa wax ne réussir na bu doon fii ko dañ naan dañ ko war a décorer dafa war a bàkku nag waaw ne man ñi woon du fi amee nag amee na fi déedéet waaye lépp ci yàlla la ko delloo yàlla loo mën a liggéey ci diine rek dellool ci moom ànd ak toroxlu gu mat sëkk ndax nag li nga am lépp ci ndimbalam nga ko amee gis nga nasrullah la ko tudde isa jaa nasrullah su ndimbalul yàlla ñëwee ci la li amee war a ayta naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja loolu mi ngi amee ci nasrullah du say pexe wa ma nasru illa min indillah ndimbal ci yàlla rek lay jóge kon loo jëf ci diine bul bàkku bul naw sa bopp ndimbalul yàlla rek yàlla moo la baaxe loola jéggulu ko ndax mën naa am sax gàttañ lu nga ci loo waroon a def te yow defoo ko mën a lii mu la defal mérité woo ko waaw moo tax ngay jéggalu yëkki na la poids poids boo xam ne ci daraja boo xam ne buñ nattoon say mbir yow jege woo ko sax te teewul mu yéege la fa looloo tax ne kon am nga ak kon kon kon jéggalul wastaxfirhu jéggalu ko innahu kaana ba loolu ñi góorgóorlu ci diine yépp rawatina njiit yi ak ñi mbooloo ñiy topp ak ñi liggéey ci diine saar booboo dañ koy teg ci seen kanam parce que la dañuy dem ba egg foo xam ne mbooloo mi bari lool ñu réaliser yu bari ci l'islam tabaxi juma tabaxi yu bari ñu tabax ko dal di jàpp ne nag ñoom fi mu ne moom egg nañ foo xam ne daal li ñu def lépp def nañ ko waaw léegi la sax ñuy commencé nag di bàkko wala ay ni di leen tagg di leen wax yoo xam ne day mel ne ñoo ca d'accord parce que ñoo koy dégg te duñ ca wax dara waaw buñ ko waxalul seen boppin ñu di leen ko waxal ñu bàyyi ko ca kon day mel na dañuy bàkku moo tax ñu baax ñi ñoom ku ci masaa def góor góorgóorlu ci diine sag dund duñ ko ci wax loo dégg ñu ko fiy nettaleel ko baax ci salafu saalix yooyu gannaaw bu mu fi jógee lay doon ndax dañuy bañ fitna dal ko ci dañuy xam ci moom lu baax lool waaye duñ ko wax mu koy dégg buñ ko waxee du ko dégg te dañuy wax mbooloo mi ne bu mu ko dégg de bu mu ko dégg ndax rek bañ fitna dal ko muy naw boppam kon xisaab boobu moom itam mawxif la boo xam ne ci la ñuy régler nit ki ay jëfam yu baax ak yi nga xam ne mooy yu baaxul xisaab ba nag mooy su paree mooy ràññe yu baax yi tegee na ne yu baaxul yi tegee na ne le loolu nag mooy indi peese ba nag le borom bi ne al waznu yawma isinil xaq bu keroogee nag peese mooy dëgg fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika hum almuflixun wa man xafat mawazinuhu fa ulaika alladina xasiru anfusahum fi jahannama xaalidun nee na keroog daal peese mooy dëgg wa nadacu almawazina alqista li yowmi alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a borom bi nee na daa teg balance yoo xam ne yi juste la du bàyyi dara balance yu normal mawasin al qist la ko tuddee nee na du ma tooñ kenn fala tuzlamu nafsun shay wa in kaana misqaala xabatin min xardal atayna biha wa kafa bina xaasibin nee na doonte dafa tuuti ba toll ne fépp suuf xaritu fépp suuf wa gën a tuuti nga xam ne bët mënu koo gis nga def ko ci lu baax dinaa ko indi waaw say jëf du réer moo tax Abdullah ibni Mas'ud ba mu fekkee gaaya ca jàkka ja benn waaye naan wax leen laa ilaha illa téeméeri yoon wax leen subhaanallah téeméeri yoon ñuy fab ay xeer di ko jal bu ñu waxee benn laa ilaha illa teg mu ñëw fël tànkam ak xeeree tasaare ko ne leen wàññi leen seen i ñaawteef maa ngi leen di war warlool ne seen yu baax du sànku waaw yu baax yi ngeen di wàññi naan wax naa laa ilaha illallah xeer yaa ngi nii téeméeri laa ilaha illallah mi ngi nii nee na du sànku inna laa nu di laa nu diw ajra man ahsana amala inna allaha laa yu diw ajra al muhsinin borom bi nee na benn jëf bu rafet buy réer amul waaye nag mu ne li jar a kay mooy say bakkaar nga ngir nga tiit ci li jaroon a wàññi mooy say bakkaar nit ñi koo gis ma ngaa góor yu som di wàññi ne ay subhanallah ki la waaw te ma waññi ñaata yoon la fi jëw ci bëccëg bi ah kurus foo jëwee jëwee rek nga dóor perte foo xoolee lu araam nga dóor perte bu ngoonee nag nga calculer yu araam yi nga fi def ndax nga tiit ah waaye buñ la laajul bëccëg nga ne man day bëccëg bi tey jàmbar la wax na subhanallah nag wax na astaghfirullah waaw li nga fi def ci bàkkaar nga loolu mu xamoo ko ndax wëññoo ko seetluwoo ko sax mel ni defoo dara nag lu baax dong ah? mu ne leen ko bu da ngeen di wàññi bay wàññi ñaaw téef yee jaree woon wàññi bàkkaar yee jara wàññi ndax nga tiit ci ah man de tey day jëw naa téeméer yoon ci bëccëg bi ko kon doo nelaw te bu ëllëgee danga ko moy kon waaye da ngay def mu jàll rek doo ko yëpp Euh, Aysa radiallahu anha si na Aysa sayyidina Aysa bari woon na loolu mu daan waxtaan ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci mbiri yowmal xiyaam loolu jigéen ñi nañ ci jël bind bu baax jigéen ñi lu ci baree baree bari boo gisee ñoom mbiri àdduna léeg-léeg muy xaw a xóot ci seeni xol yi nga xam ne moom la ñuy waaroo ci muy gis ko faatu ñoom li ci gën a bari xam nga nit buy bëgg ñu ne génn leen jigéen ñi génn leen jigéen ñi te gis ko faatu googu loolu dafa bokk ci liy waar nit ki yo bokk bokk na ci lay fàtte àllaaxira nga gis ku toll ci sukuraat tiim ko ba mu dog ba pare nga gis ko faatu ba noppi ni muy mel ni muy soppi ko waaw loolu dafa mat di tiim jigéen ñi comme li ci gën a bari duñ ko tiim te kenn terewu leen ko seen kii moo fa yëggul rek mais jigéeni saxaaba yi Abubakar Sadiq soxnaam moo ko sang soxnaam moo ko sang waaw waaye tey fi mu ne jigéen ñi ko ci ne woon kaay sang sa boroom kër du ko du ko ñeme nga yuuxoo ka ma ngay dugg feneen duutu ñeme jege foofu kon di tiim yu mel noonu itam nag jigéen ñi di ci di leen jàngal yu mel noonu sax di leen jàngal sax ñuy sangi néew sax nag loolu dem nag bay bëgg a manqué bay bëgg a manqué fi mu ne jafe ci biir jullit ñi léegi parce que daanaka ay mag ñoo xam ne dem nañ ba mag yoo xam ne sax jànguñu ko dañoo dem ba seenu fit egg ca rek ñu di ko def waaye ñu toll ci ak ndaw boo xam ne toll nañ ci jàng toll ci mën a xam la ca sunna wax ak lépp ñu jàngal leen ko ñu di ko def loolu dafa war a am fi mu nekk waaye ay mag yu mag a mag a mag ba jàpp ne xëy na ñii moom xëy na soxlaatuñ ci adduna lu bari ñooñ rek lañ jàpp ne ñoo ko war a def ñu mu amee ci jigéen ñi loolu la amee ci góor ñi muy bunt boobu muy sang néew ak waajal ko loolu léeg-léeg dañ ci xaw a amuk tumuranke day xaw a jaaxle léeg-léeg ci ku ko mën a def defin bu rafet ndax dem rek it yët ko ña nga xam ne dañoo wax ne dañ ko météo rek toog fa seen yoon ci néew bi te dafa bokk ci nit lañ koy tarale ñu koy taxawu ci jamono boobu doon ñoo xam ne ñu ko jege lañ ñu ko bëgg lañ ñu ko xam lañ moo tax sax ñuy bëgg ku ko dénkaane bu ma fi jógee dama diw taxaw waaye ñoo xam ne dañuy mel ne mat matériel bu ñu leen indil dong ñu ciy liggéey ñoom seen yoon ci kii xamuñu kuy kii ah bokkee taxaw fa leen ñu ne leen kaay leen jël xamuñu lu ñu def sotti seen i ndox maasale maasale daal di kaay leen jël pare nañ jàll ci keneen ah bokk yëpp taxaw fële loolu kenn ku ne war nga di ci taxaw nga man mën cee taxaw sa bokk soo demee ba xëy na sax mënoo koo defee noonu nga taxaw fa bokk di jàppale ña koy def taxaw fa ndax ñu suturaal ko bu ñu bëggee def lu wuuteeg sutura nga wax loolu bokk na ci nit ñi taxawoo nit waaye dem rek déposé ca morgue ba bàyyeek ñoo xam ne xamuñu comme doon ñoo xam ne léeg-léeg sax euh, wut xaalis dong lañ cay wut nga bàyyee leen ko loolu bokk na ci taxawaay yoo xam ne dese naa mat sayid Aïcha moomu dafa toog ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal di fàttaliku safara daal di jooy yonente bi sallallahu alayhi ne ko waaw looy jooy mu ne ko dama fàttaliku safara rek jooy daal di ko waaw yéen yonent yi ndax da ngeen fàttaliku seen njaboot bu booba mu ne ko ah amma salasatu mawaatin fala yuskar fiha ahadun ahada mu ne ko am na fa ñetti tolluwaay yoo xam ne de moom bu boobaa kenn du fàttaliku kenn ne ko anil misaan atta yaalam a yaxiffu misaanuhu am yasqul mu ne ko fa ñuy peese ba ba ngay xam ba xam sa balance bu yiw mooy diis wala mooy jëm kaw mu ne foofu moom bu ñu tegee balance yi moom ba nga ne tekk di ko xool moom foofu tëloo kenn moom sa bopp dong nga tal sa sa plateau ñaari plateau yooyu ngay xool ba xam ba xam bu baax bee jëm kaw wala bu suuf bu bon bee jëm suuf mu ne ko waa indal kitaab fa ñuy joxee téere ya xiina yuqaal haa um iqra'u kitaabiya ataa ya'lam ayna yaqa kitaabuhu a fi yaminihi am fi simali am min warai zahri mu ne ko fa ñuy jëyee di la jox téere bi te xamagoo ndeyjoor nga koy nangoo wala càmmooñ nga koy nangoo ci sa gannaaw nee na tam itam foofu ñu lay defee jëyi téere bi nga war koo jël nee na foofu itam doo fa tal kenn wa inda siraat ne ko ak itam fa siraat nag ida wudia bayna zahraanay jahannam bu gàllee siraat ci kaw jahannam nga war koo jéggi nee na ba ba ngay jàll nee na diggante boobu itam moom du total kenn ak lu la jege-jege mu ne ko ñetti barab yii daal yooyu moom kenn du tal kenn yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci addis boo xam ne abi hurayra nettali na ko mu wax saxaaba yi ne leen atadroona manil muflis ndax xam ngeen ku fayit fayit ñu ne ko al muflisu fii naa man laa dirhama lahu wala mataa bu dee ci noonu de ci commerce ki fayit mooy ki amatul xaalis amatul marchandise ba noppi yori bor waaw commerçant bu perte bu fayit ñu ne déclaré na fayit commerçant wala société wala leneen mu ne inna al muflisa min ummati man yati yowma alqiyamati bi salaatin wa zakatin wa siyaamin wa yati qad shatama hada wa qadafa hada wa akala maala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fa yuta hada min xasanaati wa hada min xasanaati fa in faniyat xasanaatuhu qabla an yaqdiya ma alayh uxisa min xataayaahum fa turixat alayhi summa turixa fi nnaar mu di leen ku fayit yowmal xiyaam mooy koo xam ne andi na ay julli ay julleem ñu seet ko bu baax asakaam kooram waaye nag ak yi doxoon digganteem ak doomu aadama yi moom la sàmmut woon mbokk yi war dañuy bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax léegi gis koo xam ne ku góor góorlu ci jaamu yàlla la waaye ak yi digganteem ak doomu aadama yi moom sàmmwu ci moom aw làmmiñam teewu ko xat satama haasa ma ngay xaste rek ma ngay ŋàññi wala tuur na deret ci kee wala dóor na kee tooñ na daal nit ñi amee na doomu aadama ay àq yoo xam ne yóbbaale na ko yowmal xiyaam doonte am na ay tuyaaba tax kon góor góor góorgóorlu ngay góorgóorloo ci yëla suñu borom tabaraka wa taala sant noonu nga war a góor góorloo ci moytu aqi doomu aadama yi moytu aqi doomu aadama yi doomu adama yi boo amul lu baax loo leen mën a defalit nga def kafful aza anhum nga fegal leen sa lor foofu la yëf yi tàmbalee defal lu baax nit mi ngi tàmbalee ci nga fegal ko sa lor sa loru làmmiñ doo ko lor ci sa làmmiñ doo ko lor ci sa bët doo ko lor ci sa loxo doo ko lor ci sa tànk doo ko lor ci alalam doo ko lor ci njabootam dooti defaloo ko dara it waaye loroo ko ci yooyu rek bu baa defal nga ko yiwu rëy nee na su ko defee ñu jël yiwam yooyu di ko fayee ñu nga xam ne ñoom la tooñoon su fekkente ne yiwee jeex na te matalul ñu jël ñoo ña jox ko mu boole kooki bàkkaaram dal di dugg safara nee na kooku mooy ku fay dëgg te loolu lépp ma ngay amee ca peese ba ak xisab ba fala suñu boroom tabaraka wa taala di régler di régler yooyu yépp abdullah ibni mas'ud radiallahu anhu nettali na jële ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne bu yowmal xiyaam suñu boroom dana boole ñu jëkk ñeeg ñu mujj ñi dana am wootekat buy woote ne am ku am tooñ goo xam ne da nga koy fayiku ci nit na ñëw man kaana yatlubu mazlamatan fal yaji ila xaqihi fal yaxudhu ñu ne tey ku am tooñ goo xam ne da koy sàkku nee na bu booba fa yafrahu l maru an yakunu lahu alxaq ala walidihi aw waladihi aw zawjati aw aqi nee na boobu nit ki dana kontaan jéem a fàttali ko ba xam sama bay baay yoreel na ma benn aqam ndéet wala sama doom wala sama jabar ñooñu ñu ngi njëkk a ko ba xam am na loo mën a fayoom ndéet waaw am na loo leen mën a fayu moo tax borom bi wax ne bu boobaa fa man saqulat mawaasinuhu fa ulaika humul muflixuun wa man xafat mawaasinuhu fa ulaika allasina xasiru anfusahum ndax fa ida nufiqa fi suur fala ansaaba baynahum ndax nee na bu ñu walee buftu bi aw askan wu am njëriñ amatul askan waa nga fa bokk gaa nga fa waaye bokk ga amatul njëriñ parce que bokk li mu doon njëriñ mooy soo tiidee boo gisee sa mbokk kay ne man xeetliku naa waaye gannaaw bootul boo gisee sa mbokk ngay gën a am problème ah yow diw yow a ngi yow noo dëkkoon maa doon sa baay wala ameel nga ma nangam daal jëm fàttali ko loo ko ameeloon pour kalaame la ndax nee nañ ko am looy kalaame rek ñëwal waaw moo tax borom bi ne yow ma yafirul mar u min aqi ummihi wa abi saahibatihi wa bani da nga leen di siir mais da ngay daw day ba ñu xamee la daal di fàttali ko àq boo leen boo leen boo leen defoon kon moo lay xamal ne euh, kuy bëgg a say mbokk bay tax ngay ànd ak ñoom ci loo xam ne neexul suñu borom tabaraka wa taala ñu lay kontal ca la nga nekk muy lu wér di alquran ak sunna nga bëgg a bàyyi ngir ne gañ la cay ne ak bàyyi gañ la cay bàyyi nga bëgg leen a fekki bis boo amee problème nag ci ñàkk gi nga ñàkkoon a toppoon alquran ak sunna bokk yooyu ñoo lay njëkk a daw moo tax ak njubug suñu borom tabaraka wa taala moom kenn du ko jënde mbokk mbokk mu ca mënta ànd ak yow pare nga pour dangay ngay bare da ngay pare pour ba ko moo borom bi wax aaya ba qul in kaana abaukum ba aaya ba jeex bokk yaag jege ñaale yaag liggéeyukaay baag intérêt yaag yépp bu mu dox seen diggante ngeen jaar ci leen yoon wi leen borom bi tabaraka wa taala tër la ndax nit dana dem ba sunna leer ko lool njub leer ko lool waaye mu ne nu muy def ay bokkam waaw lii bu ko dundee bootul baayam dana ko bàyyi yaayam dana ko bàyyi ndijaayam dana ko bàyyi jabaram dana tas dinañ ko dàq fa mu doon liggéey dañ ko génn dëkk bi wala danañ ko fi xatal yooyu lay teg ne kon daal su ko defee nit ñi nag di ko maslaaj mocc ca yooye nag yi li nag jëru ko nag da war a déggu nit ñi bul ci yàq sa nangam diina jërul nangam waaw fekk na moo ko jar nit ñoo ngay moom bis ñëw nga tàggoog ñoom bis dana ñëw ñoom ñëpp ñu yóbbu la suul la ñëpp waññeeku ko ñibbi nga des fa yow kepp ba tax na kon ab ànd lislaam digle na ko lool waaye nag na doon ànd ci dëgg ànd ci njubug suñu borom tabaraka Euh, almashadu sadis te mooy tolluwaayu juróom-benneel bi nag mooy romb gi ñuy romb siraat ak rot gi ñuy rote ca déegu yonente bi alayhi salatu wasalaam <coughs> borom bi moo ne fa wa rabbik la naxsurannahum washayatin summa la nuxdirannahum xawla jahannama jisiya summa la nanshianna min kulli shiatin ayuhum ashaddu ala arrahmani itiya summa la nahnu a'lamu billadina hum awla biha siliya wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya summa nunajji alladina ttaqaw wa nadaru zalimina fiha jisiya borom bi nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi giñ ci sa borom ne ñëpp danaa leen pang ànd ak seytaane yi leen doon sànq ñoom ñëpp danañ teew si ci wetu jahannam xawla jahannama jisiya amul kenn ci yéen lu dul ne dana teew si foofu ci sawara ci jahannam te mooy jéggi si siraat moo tax euh, abdullah ibnu rawaxa dafa jooy bi ñu ko li ngay jooy lan la mu ne suñu boroom daf ma xibaar ne danaa ñëw safara te xibaaru ma ne dinaa fa jóge ndax nee na wa in minkum du waariduha amul kenn ci yéen lu dul na dana ci safara ñam wax na ñoo cay mucc mooy ko ragal yàlla te man waxuñu ma ne ragal naa yàlla te borom bi nee na huwa aalamu bi ma man ittaqaa yàlla xam ku ragal yàlla te nee na ku ragal yàlla doo nga fay jógee bu boobaa nee na loolu tax mu tiit barab bu ñu la faw da fa ñëw ñëw gi moom assuré na te jóge nga muccaat fa jóge fa moom léeru la neena na loolu tax mu tiit xam ne ne daal dana ñëw ci safara jéggi siraat xamul nag day jàll wala dafay des nee na loolu tax mu tiit yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis boo xam ne muslim solo na ko jële ko ci anas anas de yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bés mu ne ci suñ biir nee na mu mel ne ku xaw gëmm tuuti mel ne ku xaw a nelaw daldi siggi daldi muuñ ne ñu ne ko yaa rasulallah lan moo la tax muñ mu ne nasalat alayya aanifan suuratun yuqra'u fiha bismillahi arrahmani irrahim inna aataynaaka alkawthar fa salli li rabbika wanxar inna shaani'aka huwa al abtar mu ne leen li tax ma muñ saar woow ma wàcc ci man léegi suñ borom ne jox naa la alkawthar daal ne atadroona mal kawsar ndax xam ngeen luy kawsar ñu ne ko allahu a rasuluhu alam mu ne fa annahu nahrun waadani rabbi alayhi xayrun kathir mu ne ak dex la goo xam ne suñu borom dig na ma ci yiwu baree baree baree bëri mu ne wax wa huwa xawdun taridu alayhi ummati yowma alqiyama mu ne benn mbalka la benn déeg la boo xam ne sama xeet wépp ca la ñuy rot si bu yowmal xiyaamee aaniyatuhu adadu nujum mu ne pot yañ naa naane tol na ne biddiw yi nee na nag dana am ñu ko jëlmal si jëm si ca nee na ñu di leen dàq nee su ko defee may wax ne ñooñu dey ci sama xeet lañ bokk suñu borom ne ma maa tadri maa xadasa baadak xamoo ñoom lu ñu sos sa gannaaw xamoo lu ñu sos sa gannaaw beneen xadis boo xam ne Sahl ibn Saad moo ko nettali yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ana faratukum alal xawd nee na man maa leen di jiitu ci ca dég ba man marra alayya shariba wa man shariba lam yazma abada nee na ku ñu atte ba pare foofu la ñuy fekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci dégg ba nee na ku ñëw naan dootoo mar mukk waaye mu ne ay nit dinañ fa ñëw la yaridanna alayya aqwamun aarifuhum wa yaarifuni nee na ay nit dinañ ñëw ma xam leen ñu xam ma summa yu xaalu bayni wa baynum waaye nee na ñu dox sama digganteeg ñoom abu said al xudri dolli ca ne yonente bi alayhi salaam dafa wax ne fa aqulu innahum minni nee na su defee ma ne ñii kat ci man lañ bokk nee na ñu ne ma innaka laa tadri ba ahdasu baadak ñii xamoo lu ñu sos gannaaw nee na su ko defee ma ne suxqan suxqan nañu sori nañu sori waaw li man xayara baadi nee na képp koo xam ne soppi nga sama gannaaw li ma andi woon soril ca àll ba kon soppi dara ci lislaam luñ ca yokk wala lu ñu cay wàññi jullit war na cee xér lool ci kenn bañ ko ci yóbbaale kenn bañ ko ci yóbbaale rawatina nag ci barab yu mel ne suñu barab yii nga xam ne eh, nit ñi liberté bi ñu am ci di sos amul dara lu leen di jànj ci loola muy kàddu gu diine ñàkk kàddu gu boppam goo xam ne lislaam rek la fi nekkal ñàkk gu mu ñàkk moo tax nit ñi liibar ci lu leen neex sos lu leen neex def askanale ko ci diine ku xamul nag wala xàmme woo ñu yóbbaale la ca loola jàng diine jamono bu nekk la nekkoon farata war waaye nag rawatina ci jamono jii moom jamono jii moom dem na ba egg sax ci ma nga wane wax ne fardu ayn la léegi sa duutu fardu kifaaya waaw fardu ayn la ndax boo ko def rek dañ la yóbbu dañ la yóbbu ci loo xam ne danga nga ca sonn lool ñàkk ca sa alal ñàkk ca sa waxtu ñàkk ca sa liggéey léeg-léeg sax nga tàggoo ak say wayjur sa adduna naqari ca te na loola du diine kon diine kenn ku nekk war ngaa xeer fi mu ne ci jàngal ko sa njaboot ca na mu gën a wére te mooy alquran ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam masaj saabix bi muy tolluwaay juróom-ñaareel bi nag mooy ramm ram mi nga xam ne ñu baree baree bari e, yowmal xiyaam gëm nañ ko waaye lool rek lañ fa yaakaar ñoom ramm lu am la borom bi ne yowma idin la tanfau shafaa illa man adina lahu rahman waaye nag nee na bu keroogee am ramm du jariñ day lu dul ne suñu borom moo ca joxe ndigal kenn du rammit lu dul moo la rammuloo man dal lazi yasfau indahu illa bi bi izni te ka ngay rammit mooy gërëm nga ramm ko wala yasfauuna illa li man irtada di jagee dañ lay jox quota rek ne yow may nañ la junni ngay xool ci nit ñi di remplir daan e eh, diw boole naa la ci waaw dañ la may nañ la junni rek yow ku la neex ku neex daal jëlal ci gaa yi may nañ la ci junni déedéet wala yasfauna illa liman irtada kenn du ramm lu dul koo xam ne borom bi gërëm ne ku ramm wa kam min malakin fi samawat la tugni shafaatuhum shay'an illa min ba'di an ya'sana allahu liman yashaa'u wa yarda gis nga wa yarda liman yashaa'u wa yarda waaw mooy jox ku ndigal ku ko soob ba noppi gërëm ka muy ramm mu d'accord ci ñu ramm ko wa yarda moo tax kon góorgóorlu ba bokk sax ca ñey ramm moo gën toog rek di ko yaakaar euh, dikk na ci xadis bu wér de ñey njëkk a mooy yonent yi teg ca boroom xam-xam yi juboon di jube seen jafe seen xam-xam yonente bi alayhi salatu wasalaam ne yadxulul jannata bi safaati rajulin min ummati akthar min bani tamim bani tamim aw xeet la woon wu bari aw nit mu ne mbooloo mu tol noonu ne bani tamim famille bu tol noonu danañ dugg àjjana ci ramm benn nit rek ramm yay xew foofa juróomi xeeti ramm la ramm bu njëkk ba mooy bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di def mooy noppal nit ñi ci coono taxawaay boobu ñu taxawoon suñu boroom tabaraka wa taala gaawee lee de régler kenn ku nekk xam fa ngay jëm kooku moom ramm la boo xam ne rek moo ko yeyoo mooy al maqaam al mahmud wa daraja ar rafia yi nga xam ne moo ko am moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaareel ba tabbal aw nit aljanna ci loo xam ne kenn du leen xisab loolu suñ borom tabaraka wa moo koy defal ay nit jéggal leen yonente bi alayhi salatu wasalam wax ne xawmun istawjabu naar fa yasfau fihim nabiyun wa man shaa allah nit ñoo xam ne demoon nañ ba sawara yey ci ñoom ab yonent tinu leen wala ku sopp suñu borom tabaraka wa taala mu tinu leen ñu daal di mucc ci safara ramu ñeenteel ba nag mooy ñoo xam ne sax dugg nañu aljana waaye seen daraja dafa xaw a suufe ñu ramu leen ñu gën leen a yéegeel ca daraja yi gën a kawe biir àjjana ci boppam dañ fay rammat ku dugg ñu àjjana ba pare waaye xëy na euh, niveau ba mu nekk daal xaw naa suufe ndax àjjana ay darajaat la xurafun min fawqiha xuraf min fawqiha xurafun mabniya ay daraja la moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne woon bu ngeen dee ñaan yàlla aljanna ñaan leen ko firdaws mooy aalal janna moo gën a kawee ci aljanna kon ñu fa eggul woon ñu ñaan ñu ràmm leen ñu egg fa juróomeel ba nag mu ñoo xam ne ñoom duggoon nañ safara ngir ay bakkaar ab yonent ràmm leen wala keneen ku dul ab yonent ci nit ñu baax ñi ba ci sax malaayika yi ak mboolem ñi gëm yàlla ku ci soob suñu borom tabaraka wa taala mu jox la ndigal ci nga ngaram waaye moo lay jox ndigal illa bi iznihi moo lay jox ndigal su ko defee ñooñu daal di génn gannaaw ba nag képp ku mas a wax laa ilaha illa allah am lu toll ne fépp suuf ci sa xol ci ngëm yàlla suñu borom tabaraka wa taala dana leen génne safara ci loolu sax kenn di leen ramm moom ci boppam moo leen di jéggal rek génne leen safara ñi fay des nag mooy ñi nga xam ne moom ay kaafiroon lañ yoo xam ne dañoo weddi woon kon nag ramb boobu ñu xam ne nekkul ne loo xam ne ay nit a ca am sañ-sañ yu ko yor yoo xam ne sax yow mbaax ga nga leen di jox yow rek yaa ko yaakaar ci ñoom waaye ku leen nattoon li gën a bari ci alquran ak sunna bi ñuy natte ak mbaax duñ bokk sax ci ju baax ni yow rek sax ñàkk a xam nattukaayu mbaax xëy na ci mbooloo mu bari wala bokk ci aw askan wala bokk ci alal wala bokk ci ay famille yoo xam ne yu ñu naw la ci nga daal ne kon waa ji baax na ndax fii la bokk bu ñu laajoon lu tax mu baax li ngay layee du doon layukaayu mbaax tax na nga daal di bëgg a jàpp ne kon yow kooku rek ngay féetale sa mbir moo lay ramm bu yowmal xiyam même bu baaxoon ba wér ne baax na xamoo ba xam dana rammam déet bu demee bay rambit xamoo yow dana la rammam déet waaw bu demoon ba wóor ne dana ramm xamoo yow da bokk ci ñi muy rammam déet ndax ramm nga du ko def ci coobareel boppam dañ ko koy defloo rek masat bu juróom-ñetteel bi muy tolluwaay bi nag mooy melow safara ak mbugalum yéefar ya foofa loolu mat nay bàyyi xel bu baax borom bi wax ne fa lazina kafaru quttiat lahum siyaabun min naar nee na ñi weddi yàlla yéere ya ñuy sol ci safara lañ leen koy dogal mbubbi safara lañuy sol sol yusabbu min fawqi ruusihim alxamim nee na ñuy sotti ndox mu bax ba baxatut degere bi gën a kawe i fa baxuk ndox mën a yam nee na moom la ñuy sotti ci seen kaw bopp yi kullama araadu an yaxruju minha min gammin uidu fiha nee na saa yuñ bëggee génn ngir njàqare su ko defee ñu delloo wàllan ca biir moom la borom bi ne walladina kafaru lahum naaru jahannam laa yuqda alayhim fa yamuutu wala yuqafafu anhum min azabiha kadalika najisi kulla kafur mu ne ñi weddi yàlla ña nga ca biir jahannam nee na duñu jekkaliku kenn du leen jekkali ñu faatu te duñ leen waye falal mbugal bi laa yamuutu fiiha wala yaxya du dund du dee dundul dund dëgg dëgg dëgg la la dund di tekki muy nekk ci bànneex ak jàmm waaye deewul itam nag mu ne wahum yastariquuna fiiha ñu yuuxu naan rabbana axrijna naamal saalihan gayra alladi kunna naamal yàlla boo nu génnee danañ def lu baax lu bokkul ak lu bon liñ doon def suñ borom ne leen awalam nu ammirkum maa yatazakkaru fiihi man tazakkar moo ndax dundalu ma leen woon ci àdduna may leen fan woo xam ne lu baax lu ne xajoon na fa hmm? xam nga benn bi seeg ci xaj ci lu baax kenn xamul nu mu toll waxuma la weer waxuma la at waxuma la fukki at ñaar fukki at fanweeri at ñeent fukki at juróom fukki at loolu lépp nga nekk ko fi di dem ak a dikk rek di perdal sa dund rek moo tax suñ demee nag ne yàlla génn nañu suñu demee dañ def lu baax mu ne joxoon naa leen temps bu doy awalam nu amirkum maa yatadakkaru fihi man tasakkar wa jaakumu nadir te ku leen doon waar ak di leen fàttali dikkoon na waaye yéen a ko toppul woon kon mbugalum safara lu tar la m la borom it inna shajarata zaqum taamul asim seenu ñam ci biir safara nee na garab la goo xam ne gu ñuy tëdd saquum la garab gu wex xat goo xam ne ay dég la feese waaw nee na kal muhli yaxli fil butun ka xaliyil xamim nee na dafa mel ne diw suñ ko lekkee day bax ci seen biir bi garab googu suñ ca lekkee te mooy ñamu safara day bax ci biir bi ka xaliyil xamim xuduhu faatiluhu ila sawail jahim suñ boroom ne jàpp leen ko yóbbu leen ko ca digg safara suma subboo fawqa rasihi min azabil xamim ngeen sotti ci kaw boppam mbugal moo xam ne ndox mu tàng jër lay doon ne ko duq mos ko innaka antal asisul karim yow kat yaa de woon yaay ko tedd ka ci àdduna yaa gënoon ñëpp tey mosal lool abi xoreyra nettali na hadis boo xam ne tirmisi moo ko solo yonente bi alayhi salatu wasalaam ne bi suñu borom bindee aljanna dafa wax jibril ne ko demal xool ko nee na jibril dem xool ko gis la fa suñu borom tabaraka wa def ciy xéewal mu del si ne suñu borom maa ngi giñ ci sag màggaay ne àjjana jeedey waxuma la gis ko waaye ku ko dégg rek danga nga ca dugg àjjana ku ko dégg rek danga nga ca dugg nee na suñu boroom daal di koy wërale ay naqaro <coughs> yi naqari ci bakkan yépp moom dañu wërale àjjana bàjjana àjjana moom bala nga fa dem moom danga nga da nga xeex sa bakkan wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al mawa naha nafsa hawa li bakkan di xëccu di ca jëm moom ku ko topp doo dem il faut nga xeex loolu ne jibril delluwaatal xool ko ba ko jibril xoolee gis ya ko suñu borom wërale ci ay yu metti ci bakkan yu naqari ci bakkan mu ne sa boroom day sama borom dey maa ngi giñ ci sa tedd nga ne yaakaar naa ne àjjana kenn du ci dugg xasiitu an laa yadxulaha ahad ndax nee mu mel ndax ndax ña mu jafee dugg ndax bala a dugg xeex bakkanam xeex gu mat sëkk yi bakkanam di bëgg yépp mu bàyyi ko bootul kenn du ca dugg mu bind safara ne ko demal xool ko jibril xool ko gis la fa ne ci xeeti mbugal ne ko safara wee de ku ko dégg doo fa dugg waxuma la gis ko waaye ku dégg ne safara am na ak lee fa ne doo fa dugg suñu borom daal di jël xeeti bànneex yépp wërale ko safara xeeti bànneex yi doomu aadama bëgg ne ko demal xoolaat ko mu xool ko ne safara même ba gis day yu neex yee ko wër yaakaar na ne kenn du ca mucc waaw bootul kenn du ca mucc xasiitu an laa yanjoo minha ahad kon ay bànneex moo tax iblis loolu la wax ne nit ñi dama leen di toppaloo seen i bànneex rafetalal leen yu bon yi ci kaw suuf la uzayyinanna lahum fil ard su ko defee yooyu mooy yóbboo safara abi xorayra nettali na nee na mas nañu toog ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñu dégg benn bruit bu xumb nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen waaw ndax xam ngeen loolu la mu ñu ne ko allahu wa rasulu alam mu ne aw xeer la woo xam ne bañ ko sànnee ci biir safara ak léegi mat na juróom ñaar fukki at mi ngi doog a egg ca tabu ci xóotaayu safara ad darakul asfal min an anas nett li jële ci yonente bi alayhi salaatu mu ne dañuy wax ka gën a wayaf mbugal ci biir safara bu yowmal xiyaamee ñu ne ko waaw yow boo moomoon li ci kaw suuf lépp ndax danga ko jotoo law anna laka ma fil ardi min shay'in akunta bi bihi ka nga xam ne moo fa gën a sedd moo fa tànnale mbugal ñu ne ko waaw ndax adduna ba nga nekkoon doon fa mooy yàlla ba dugg safara nii àdduna boobu boo moomoon lépp ñu laaj la ko ndax da nga ko joxe ngir mucc ci li nga nekk mu ne waaw ñu ne ko mu ne laajoon nañu la lu gën a yomb loolu de te defu ko la la yàlla doon defloo ak lam la doon tere moo gën a yomb di jël àdduna di ko faye yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne ki gën a woyef mbugal ca biir safara mooy koo xam ne nee na ñaari dàll lay am yooyu safara dàll yi am ñaari waru mooy foofu ngay dugal sa baaraam waaye nee na dàll yooyu bu ko solee yóor gi day bax dàll rek la sol de kenn dugalugu safara dañ ko solal dàll yi rek mu taxaw dàll yi rek la sol waaye tàngaayu sa dàll yi tax na nee na yóor ga day bax yaxli minhuma dimaaxu kama yaxli al mirjal ma yara anna ahadan asadda minhu azaban nee na jàppul ne kenn gën na koo tar mbugal te nee na moo ci tanale moo ci gën a wayafle waaye day jàpp ne moo ci gën a mettale amma masattation bi bu juróom-ñeenteel bi nag mooy wasful janna parce que day boole tarqib ak tarhib yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in sa war a war ngaa xam borom bi melal na ko lu bare bare bare bari ci alquran ngir ñu ragal ko melal lu baree baree bari aljanna ngir ñu xemmem ko moo tax mu ne wa bashir alladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar bégalal ñi gëm yàlla tey def lu baax ne day waajanal leen aljanna joo xam ne kullama ruziqu minha min samaratin risqan qaalu hadha alladi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha nee na saa bu ñu leen andilee ci xéewali aljanna ya day nuroo ba da ngay jàpp ne lii lañ andi woon waaye boo mosee du bokk palaat bi bu ñu ko indiwaat da ngay def ah man kat liñ ma añee woon rek lañ ma nar a andil reer waaye nee na buñ la ko tegalee bokk mu sedd bokk wa oto bihi mutashabiha dafa nuróo rek mais bokkut mutashabih wa lahum fiha aswaajun mutahara nee na am nañ fa soxna yu laab wa hum fiha xaalidun borom bi tabaraka wa wax ne ñooñee nekk biir aljanna dañuy am ay yére yoo xam ne le sooy ba gën rafet ci sooy yi ci lañ koy rabbe min sundusin wa istabraq muttakiin nee na dañuy soonu ci seeni lal mutaqaabiliin jàkkaarloo am ay xale yu rafet yoo xam ne ñooy wër ci seen biir yatoofu alayhim wildaanun muxalladoon bi akwaabin wa abaariq wa ka'sin min ma'in laa yusaddauna anha wa laa yunsafoon nee na xale yoo xam ne ñu ngay wër yor ay tabla yoo xam ne ay kaasa ca tegoo ki baraada di wër di xel li naan goo xam ne nee na boo ko naanee doo tàggook sam xel te sa bopp du métti bu dee ca lekkee mu ne wa faakihatin mimma yataxayyaruun nee na xeetu fur wi boo bëgg rek mu ñëw walaxmi tayrin yàpp picc mimma yastahuun ca lañ ca gën a bëgg wa xuurun ayn ka am daali luli il maknuun nee na jigéeni xuurul ayn yooyu nga xam ne nee na dañoo mel ne wurus woo xam ne loxo laalagu ko ci rafetaay mu ne loolu nag jazaan bi ma kaanu yaamaluun suñ borom da leen koy fay lañ doon jëf laa yasmauna fiha laghwan nee na àjjana kenn du fa dégg waxi caaxaan illa xiilan salaaman salaama nee na loolu ngay dégg salaaman salaama jàmm rek nuyoo rek wax joo xam ne waxi caaxaan la wax joo xam ne waxi burwe la doo ko dégg mu ne wax asxaabul yamini ma asxaabul yamin asxaabul yamin mooy ñu toll ci parce que aljana nit ña ñetti euh, nit ja bu yowmal xiyaamee ñetti ñetti daraja la ñuy doon borom bi wax na ko wa kuntum aswaajan salaasa almuxarrabuun ak ashaabul yamin ak nag ashaabu shimal almuxarrabuun wa saabiquun assaabiquun ulaika almuxarrabuuna fi jannati naim ñette tegu nag mooy ashaabul yamin ñooñu itam danañu texe waaye nag duñu egg ca saabiquun assaabiquun ya ñe dul texe nag mooy wa ashaabu shimal ma ashaabu shimal fii samumin wa xamim muxarraboon yëleen borom bi na sullatun min al awalin waaye wa xalilun min al axirin nee bari ñu jëkk ña ñoo ca bari le muxarraboon yi salafu saalih ak ñu jëkk ña ñoo ca bari le amma ashaabul yamin ne leen sullatun min al awalin wa sullatun min al axirin ñu mujj ñi bari la nañ ci ñu jëkk ñi bari nañ ci ashaabul yamin ñi ci digg bi moom nee na bari nañ ci ñuy texe moom deuxième catégorie gi moom bari na mais première catégorie bi moom nee na ñu jëkk ñaa ëpp la ñu mujj ñi ci seen génération yii moom première catégorie ay benn benn la assaabiquuna bil xayraat ñu néewul ay benn benn la ci amaa nag ñi minhum muqtasid wa minhum saabiqun bil xayraat muqtasid boobu moom bari na ci moo tax mu ne zullatun min al awalin wa zullatun min al axirin waaye rek tey ku góorgóorlu itam nag borom bi tëjul bunt bi benn yoon kon daal yonente bi alayhi salaatu wasalaam li mu wax ne suñu borom dafa wax ne adattu li ibadi salihin maa la aynun ra'at wala udunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar nee na parapareel naa sama jaam yi gëm sama jaam yu baax yi loo xam ne bët mësu koo gis nopp mësu koo dégg xel mënu ko xalaat ci àjjana àjjana dangay dem ba gis rek yàlla nu ci yàlla yóbbu wa ida raayta samma soo gisee la nekk foofee raayta naiman wa mulkan kabira nee na xéewal dëgg ak nguur dëgg dëgg dëgg dëgg gudul folliku goo xam ne wut awtooy garde amu doo tiit folliku nee na foofee la am raayta naiman wa mulkan kabira foofu la mbir ma nekk yonente bi alayhi salaatu salaam ne waa àjjana dañuy gisante di séenante nee na ni ñuy sori waatee ci ay daraja nee na comme ni ngay téene di seen bidiw di ko xool dana am ñu nekk àjjana ñoo xam ne noonu la ñuy téene di xool ñeneen ñi leen fare kaw ci biir àjjana kon ay darajaat yu kawe la yoo xam ne ah tolloowul kenn ku nekk fa sa daraja toll rek moo tax ñu laajoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yaa rasulallah tilka mansilul anbiya laa yabluquha xayrum ne ko xanaa bidiw yu kawee yooyee day mooy waaye yonent yi ñoom ñoo nekk foofa kenn ku dul ñoom doo fa yegg mu ne leen balaa xakay wala si nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin nit ñu gëm yàlla dëggal yonent yi danañu mën a dem ba jegeeg yonent yi alayhimu salaatu wasalaam place kon góorgóorlu ci roy yonent yi yonent bi alayhi salaatu loolu dana yéegal nit ki ci daraja yu kawe amma jigéen ñi yi nga xam ne ñoo nekk ay julli fi ñoom it suñu duggee biir aljanna parce que jigéen lam gën a bëgg ci ak teraanga juñ koy defal mooy mu nekk ndaw bañ a màggat taaru bañ a gis ku ko fare ndaw waaw jigéen moom li muy bañ rek mooy dem bañ nu gis lu mu defaru defaru gis koo xam ne xale bu ndaw la moom moo ca toll moom boobaa da yëg ne man màggat naa waaw li muy bañ rek nga ne ko màggat nga màggat rek la ñuy bañ moo tax borom bi ne inna anshanahunna inshaa fa jaalnahunna abkaara uruban atraba li ashaabil yamin nee na dama leen di bindat jigéen ñi ko ca faatu nekk màggat ak wala nga wéra di wër ak lépp du caagee ni na meloon noona ngay dekkee boo dekkee borom bi bu lay dugal aljana da lay bindat nee ñëpp nekk ay jànq waaye uruban ay njege maar yu ndaw atraban nekku maas nag kenn du mag sa morom atraban parce que bëgguñoo magaate atraban kenn ku nekk nekk tollook sa moroom jigéen ñi war nañ ci góor góorlu fii fii hinna xaasiraatu tarf nee na jigéen ñi àjjana seenu bët dafa gàtt seen borom kër rek lañu xool lu mu am rek doy na leen seen borom kër rek lañu xool xooluñu keneen lam na insun qablahum wala jaan taggaat leen ne xoorun maqsuuraatun fil xiyaam seen xayma yooyee duñ fa génn jigéen ñi fii suñu borom leen di wa qarna fii na toog leen seen biir kër yi te gis ngeen yàq jamono ji léegi jàpp ne kër amatul léegi ñëpp a war a xëy dem waaw mel ne kër liggéeyukaay boobu entreprise boobu kenn da cee waratule liggéey njaboot gi boo gisee njaboot gi yar bi jafe léegi mooy loolu jigéen ji la mu waroon a liggéeye léegi ñu ne ko loolu dañ la coloniser góor gi lim la mënal moo tax mu bëgg laa toogloo ci biir kër gi demal yi am ne moom su ko defee dut la yilifati waaw su ko defee nag njaboot ga moom daal di nekk njaboot goo xam ne kenn yaratu leen njaboot goo xam ne duñu am attachement ci seen i wayjur duñu am benn yërmande njabootu mbedd la ñuy daal di doon kon jigéen nañuy toog ci seen biir yi kër liggéeyub kër amul benn liggéey bu ko fare kaw ndax lu waaye mën a liggéey ci àll bi ci kër nga koy jariñoo si lu waay mën a liggéey ci àll bi boo amuloon kër goo mën a ñëw am jàmm man ko faa jariñoo lu muy jariñ même que jógee ca biro ba ak bureau ba biro bu mën a doon bëggul a fanaan ca bureau ba ministre bu bëgg bëggul a dëkk bureau président bi bëggula dëkk bureau kenn ku ne bëgg ngaa wàcc dem sa kër toog sa kanamu njaboot foofaa la dàqal bureau bi moo tax borom bi ne li taskunu ilayha wa min ayati an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma mu def seen diggante cofeel ak yërmande kon jigéen ñi bu leen kenn nax ci loolu dañuy yar seenu njaboot di jaamu yàlla ci seen biir kër góor ñëy di leen taxaw ca loola lépp lu ñu soxla lu ñu waroon a mën a wuti ca biti luñ ca mën a am ñu defal leen ca loolu amaa nag masad bi nga xam ne moo mujj nag dikk na ci Abu Saïd al Xudri nettali na nee na bu nit ñu duggee aljana ba noppi nag suñu boroom day wax waa aljana leen yéen waa aljana ñu ne labbayka rabbana wa saadayka mu ne hal radiitum ndax kontaan ngeen ndax gërëm ngeen fa yaquluuna wa ma lana la narda ya rabbana wa qad aataytana ma lam tuta ahadan min xalqik jox nga nu loo xam ne jox ko kenn sa bindeef yi mu ne ma ndox du ma leen jox lu gën loolu ñu ne yow sunu borom ma ndax am na lu gën li nga nu joxati mu ne leen am na lu gën lu gën lool kay mooy wàcce naa sama yërmande sama ngërëm ci seen kaw duutuma leen mere bukk waaw itam danaa leen may ngeen xool sama jëmm moom la borom bi ne lillazina ahsanul xusna wa ziyaada ñi dugg ñi defoon lu baax dañuy dugg àjjana ba noppi yàlla dolli leen moom la ne wujuhun yawma isin naadiratun ila rabbiha naadiratun xar kanam yu leer nee na di xool borom bi tabaraka wa taala dikk na ci saxihu muslim yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ida daqala ahlul janna aljanna bu waa àjjana duggee aljanna suñu borom day wax ne arturidoona shay'an azidukum ndax bëgg ngeen lu ma leen dolli ñu ne ko ah mu ndax léeraloo sunuy xar kanam dugal nu aljanna musal nu ci safara nee na sunu borom daal di yëkkati kiiraay bi doxoon digganteem ak nit ñi ñëpp xool jëmmam mu daal di jàng li la siina ahsanul xusna wa siyaada jarir ibnu abdillah nee na am na benn guddi nee na weer wi leer naññ yonente bi sallallahu alayhi di xool weer wi daal ne innakum sa tarawna rabbakum iyaanan kama tarawna hadha al qamar dangeen gis suñu boroom njëmmeer jàkkaarloog moom nii ngeen jàkkaarloog weer bi du am benn niir buy dox ci diggante bi ne bu ngeen góor góorlu nag ba kenn du leen not ci ñaari rakka lu jiitu jant bi fenk ak ñaari rakka lu jiitu wala julli rek la wax ak julli gi am balaa jant bee fenk ak julli gi am balaa jant bee so na ngeen ci góorgóorlu bu baax mooy jullik fajar ak jullik tàkkusaan mu ne fa in istataatum an la tuxlabu an salaatin qabla tuluci shams wa qabla qurubiha fafalu fafalu na ngeen ko def na ngeen góorgóorlu ci ñaari julli yooyu sàmmonteeg moom bu baax kon nag mbokk yi nañu fàttaliku bis bi nekk ci sunu kanam borom bi bis bu diis la ko tudde nee na inna haulaai yuhibuuna al aajila nee na ñii adduna ju teew ji rek a leen tax a jóg te wa yazaruuna waraahum yowman thaqila nee na yéen a ngi bàyyi ci kanam bis bu diis xam nga àdduna fii léeg-léeg rek nga am ngénte rek bis bu diis lay doon sa kanam feeg jëllul rek kuy wax sax ne ñii dañuy font rek waaw man maa ngi am i problème yoo xam ne ñii di xaqataaya kare da nga leen di mere sax waaw wala nga am bis boo war a dem tribunal ci boo xam ne jàppoo ne bootul dinañ la tëj bis boobu lii feeg passé wut doon la guddi te nag bis bi nekk ci sa kanam nag muy bis bii ngay teew ci kanamu suñu borom tabaraka wa taala ak bis bi ngay dugg ci sa bàmmeel bis yooyu ku mu nekk sa kanam war ngay ree tuuti moo tax borom mi ne fala yadxakoo qalilan wala yabkoo kasiran di leen ree tuuti di jooy lu bari di leen tuuti di jooy lu bari bis ba nag dañ koy waajale borom bi tabaraka wa taala wax na ko fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada koo xam ne daal gëm nga yaakaar nga ne bis bii ñu doon waxtaane da fa teew waajal ko noo koy waajale fal yaamal amalan saalihan jëfal jëf ju baax jëf ju baax mooy lan mooy loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko digle nga jëlee ko ci yonente bi alayhi salaam wasalaam ko ci sunnaam yam ca fam ca yam képp bul ca yokk bul ca wàññ loolu mooy al amalu saalih te nag sori bokkaale wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada ndax loo am am jëf ju baax ba noppi boole ca bokkaale kat mi ngi mel ne nga yoroon marchandise bu baax ba noppi boole ci dorog waaw bis bu ñu la jàppee marchandise ma walaa barak ma walaa batul ak lépp la ñuy boole yóbbu ba noppi sànk la yàlla nu yàlla def ñuy ay jullit dëgg tënku ci siratul mustaqim mu teg nu ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu aljanna jàppandal nu ko lim ne fasanu yassiruhu lil yusra danaa leen yombalal yoon wu ajjana woowu nga xam ne yoon wu yomb la yàlla nu ko defal amma yoon wu jafe wa nag yàlla nu ca musal muy yoonu safara wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain